ñu am fas fasuk andi juróom benneel bi muy garabu Tuubaa de juróom benneel bi xaadimul xadim moo ko doon dajale yal na ko boroomam nangu te barkeel ko ci barkeem xaada lahu lahu maxtaara lahu mu fees dell aki njariñ ni ya ko jiitu woon mel al sëriñ alxaaji moo ko def ngir bëgg jullit yépp jariñu ci mu doon liggéeyub sëriñ Tuubaa ci biir liggéey mi yal na ko sëriñ tuuba nangu ila zilalu nabiyi almuntaqa zallalat ala sawi lfawsi biljannati falhaadi yatlubi téere bi fii la tàmbale dani audu billahi min alcheytan rajim wa inni uhisuha bika wa dhurriyataha min alcheytan rajim rabbi ahusu bika min hamazati shayatin wa ahusu bika rabbi an yahdurun بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بعقبة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما وبركة تقود بها للشيخ الخديم القائل ظلالي إلى جنات باخ توسعت وكلي ومالي صان حام مشرد ما اخترت ورديت له في الحال والمآل عونك يا معين وبك نستعين ñu ñëw ci bu njëkk bi sëriñ tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu bi muy dem ci géej gi lii mooy dénkaane bi mu dénkoon muridi xoolal xatu ñaar fukk ak juróom ñaar muy wen set ci diwaanu jasaa'u shakuuril atuuf da nga gis xarab yi noonu lanu ko fas yéenee toppe ci xaaj bi ak yeneen mbindam ci xarab wallahu a'lam bismillahir rahmani rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه وصحبه والتابعين ينتالبي يلا بو ngeen tiit maa ngi leen di dénk ragal yàlla subhanahu wa taala sayidatuna aisha radiallahu taala anhu nee na yonente bi salallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallam mësta yéem dara ci adduna kenn mësu koo yéem ku dul ku ragal yàlla subhanahu wa taala xataadatu radiallahu taala anhu nee na bind nañu ca tawreet ni doodu doomu aadama ragalal yàlla te nelawal fu la neex am na ku masa wax ab sëriñam dénk ma mu ni ko maa ngi lay dénk li sunu borom dénk ña jiitu ak ñi mujj te mooy ragal yalla subhanahu wa taala ki gën a tedd fa yalla subhanahu wa taala mooy ki ko gën a ragal ku bëgg tedd nga adduna ak alaxira na ragal yalla subhanahu wa taala ragal yalla gi gën a kawe moo di moytu lépp lo xam ni day lor sa mbirum diine te moo di moy ak ak neen maa ngi leen dénk sàkku xam-xam moo ndax mooy yoon wi tax àgg ci ragal yàlla subhanahu wa taala ku bëgg a soobu yoon alaxira na xam lu xam-xam yi muy jaamoo yàlla subhanahu wa taala yonente bi sallallahu taala ali bali wa sabin wasalama nee na boroom xam-xam ni mu gëne kii jaamu yàlla mi ngi mel ni ni ma gëne sama xeet wi yonente bi sallallahu taala ali bali wa sabin wasalama nee na xool borom xam-xam moo ma gënal jaamu am at di ko war aka julli maa ngi leen di dénk ngeen di jafe bu ngeen xamee bu leen jëf te xamu leen bu leen xam te du ngeen jafe. xam-xam mi ngi mel ni ak garab jaamu yàlla subhanahu wa taala mi ngi mel ni mooy meññ mi alxasanul bashri radiallahu taala xanu nee na dee leen sàkku xam-xam sàkku goo xam ni du leen lor ci jaamu yàlla tey jaamu yàlla itam jaamu goo xam ni di leen lor ci sàkku xam-xam ni ngeen xam ni xam-xam moo jiitu jëf topp ci fu ngeen tollu dee leen bàyyi xel pas-pas yi di leen mokkal di leen xool te ñooy waral mu kàllaf mu nekk mu fas ko te lépp mu ngi ci biir la ilaha illallahu muhammadan rasulullah sallallahu taala bi alihi wa sahbi wa sallama ndax baat bi li muy firi moo di amul kenn koo xam ni doylu na ci ñépp ak lépp te ku nekk ak lu nekk di aajowoo jëm ci moom kudul yàlla subhanahu wa doylu googu mu doylu ci boppam moonu xamal ni ku am la te tàmbulewul fenn yemul fenn nuloowul ak kenn walla lenn nekkul jëmm ju ñuy làmb di ko daj nekkul melow wuy nekk ci biir jëmm day dégg di gis di wax waaye yooyu yëpp nuroowul ko nuroowul ak daray mbindéef ba tey amul benn njariñ buy dellu ci moom ci li muy digle dara yitam waru ko dara mënta def dara ci kàttanam yàlla rekk mooy def ba tey sunu boroom subhanahu wa taala na ci moom li ñuy wax ak ñakk ak sonn ak jeex ak yemoo kenn wala lenn ak nekk jëmm ju ñuy daj wala muy melo wu wuy dugg ci jëmm mel ni xiif ak mar ak tax ak gumba ak lu ba tey aajowoo gi lépp aajowoo jëm ci yàlla subana wa taala moo nuy xamal ni ku am kàttan la te dërëm mënta am te neexu ko te am na xam-xam te day dund te kenn la te kudul moom daa sosu te dërëm mënta sottal ci koy boppam te andu ci nekkul kuy tele dara dara mënta am te neexu ko du réer du dee ba tey boo nangoon yonte bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi sunu borom moo ko yónni gëm nga ni dëggal daawar ci moom ak yonente yépp ak bañ a def lu xaraam ak lu ñu sib ak jotal li ñu leen yónni ba tey gëm nga malaaka yépp alayhim salaam alayhimu salaam ak téere yépp ak bis penc gëm nga ni ab yonente du fen du def lu xaraam wala lu ñu sib du nëbbu dëgg waaye lépp luy dal nit ñi mën na leen a dal su fekkee du tax ñu leen di daw wala ñu leen di xayibal lii ma wax war na mag mu nekk mu xam ko mokkal ko ràññee ko takk ko moo xam góor la wala jigéen walla ab jaam wala gor jullit wala ab yéefar jinne walla nit amul benn sikki sàkk képp kuy def li yàlla sunu boroom subhanahu wa taala waral ci moom te koy sellal mucc na ci sawar te dana tabbi ajjana ci ngeneelu yàlla subhanahu wa taala ak yërmandeem akub digam ku dul def noonu te tay ko ngir weddi rek xalku na te dana tabbi sawara ci maandu yàlla subhanahu wa taala ak meram akum tëkkoom yéen samay nit ragal leen yàlla subhanahu wa taala te koy topp di leen def lu muy digle te tey moytu li muy tere lépp lu muy digle na leen cay gis lépp lu muy tere bu mu leen cay gis dee leen jàngal seeni bo doom ak seeni soxna ak képp ko aju ci yéen bu ngeen ko defut des na leen ko laaj ëllëg dee leen sax ak tuub ndax ngeen am tawféexul jaamu yàlla subhanahu wa taala gaafuk bàkkaar yi day waral ak ñàkk di téye ba doo mën a jaamu yàlla subhanahu wa taala na mu ware doo mën a liggéey na mu ware bu leen sax ci bàkkaar mukk day ñuulal xol di ko wawal ba doo mën a am ak sell ak neexeytu jaamu yàlla subhanahu wa taala te loolu mën naa waral ak wedd ak te xeet yi maa ngi leen di digal ngeen di xeex ak ñeenti noon yi adduna bakkan bànneex cheytaane adduna da ngeen koy dëddu génn ci seen xol adduna ak alaxira ñi ngi mel ni ñaari wujj loo gën a jëm ci kii di gën a merloo kee wala ñu mel ni penku ak sow loo gën a jëm ci kii di gën a sori kee yonente bi sallallahu taala alayhi wa nee na ku bëgg adduna faaw mu lor ëllëgam ku bëgg ëllëgam faaw mu lor addunaam kon dee leen gënal lay des ci lay jeex naka noonu dee leen moytu nit ñi tey sàmm seen diine kuy jaxasoo ñoom daneen la soxlaal ba doo jaamu yàlla subhanahu wa taala yéen samay nit dee leen toog tey nëbbu jàpp leen li ngeen xam te bàyyi lu ngeen xamul bu ngeen bëggee mucc ca bis boobee nga xam ni doom du fa jariñ alal du fa jariñ dee leen taxoo mbir mi nga xam ni ñu néew ñoo koy def te bàyyi la nga xam ni li ëpp ci nit ñi ñoo koy def sufyan as-Sawri radiyallahu ta'ala anhu nee na jamono ji mooy jamono noppi ak toog ak doylo li nga am ci dundu ba faatu dawudu at-Ta'i radiyallahu ta'ala anhu neena woral ci adduna te def al-akhirah muy sa ndogu te daw nit ñi ni ngay dawe gaynde seytaane di leen ko moytu xare ak moom seen kem kattan ndax am non la bo xam du moro mukk ku saggan mu fàdd la li leen ciy musal mooy saxal xareeg moom te koy muslu tey tudd yàlla subhanahu wa taala ci waxtu yépp bakkan dee leen ko moytu mooy noon bi gën a bari lor moo gën a naqaree daaneel ndax day noon bu nekk ci biir ab sàcc nag bu nekkee ci biir kër day naqaree xam te mooy gën a mën a lor te moom day noon bu ñu sopp ndax nit ki du nangoo gis xayi bi boppam li ci ëpp mën naa rafetlu ci boppam mbir te muy lu bon lool képp ku dul moytu kanam dana ko lor dana ko xalak te du ko yëg ndax bakkan nekkul lu ñuy xëy xëy not ko mel ni yeneen noon yi ndax moom mooy waruwaay bi am na am na nag ñett yu ci dimbale ba ci njëkk moo di di ko tere yi muy faral di bëgg ndax daaba bu dee bañ boo wàññee ab xontam mu nooy foo toll itam di ko yan jaamu yàlla yu diis ndax am mbaam boo ko dee saflu diis ba noppi di wàññi ab xontam day daa di wommatu foo ko jëme mu jëm fa waxtu wu nekk ngay ñaan sunu borom dimbali la ci musal la ci yen samay nit maa ngi leen di dénk ngeen di sàmm seen juróomi cër yi ku bëgg a ragal yàlla faaw mu leen di sàmm ba ci njëkk moo di bët fitna yépp ci lay juge. moo tax sunu boroom subhanahu wa taala digal nu nu koy damm ku dul damm benn mu xool lu haram su ko defee daa di am bàkkaar bu rëy mën naa amit xolam des ca loolee mu farxal ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi sahbihi wa sallama nee nit ki dana xool ab xool boo xam ni xool ba da ci yàqoo ni ab der bu ñuy sibej di mel dootu ca jariñu fàwwoo walhiyasu billah bu fekkee la nga xool day lu dagan itam mën naa soxlaal sab xol mu tàmbalee jax-jaxee sayidina isa alayhi salaam nee na déedéet moytu xool day waral bànneex ci xol te doy na fitna moo tax ñu wax ni lii fekk bànneex yi mooy téye bat yi seeni nopp bu leen ci diglu lu bon ak neen ndax kiy diglu daa mel ni ku ànd ak kiy wax su ko defee wax wax ji dugg ci xolub doomu aadama mi ngi mel ni ñam wi muy lekk am na lu ciy lore am na lu ciy jariñ bu ngeen téyee seeni nopp ci lu amul njariñ da ngeen jariñu da ngeen noppalu dee leen wattu seeni làmmiñ làmmiñ nag mooy cër bi gën a bari lu muy mam mammu ak lu muy bew moo gën a bari ak yàq gën a bari ak noonoo am na ku mas a wax yonente bi sallallahu taala alayhi ni ko loo gën a ragal ci man mu jàpp ci làmmiñu boppam ni ko lii ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na doomu aadama bu xëyee cëram yépp dañuy dikk ciw làmmiñam naa ko boo jubee nu jub boo jubul du nu jub di leen wattu seeni xol mooy cër bi gën a bari xatar ak i ay yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallam na sunu boroom du xool seeni melo ak seeni yaram seeni xol lay xool kon xol mooy bërëb bi yàlla subhanahu wa taala di xool bu leen nekk di defar seeni yaram di ko raxas di ko setal ngir bañ ko gis ay xayib wala sobe ba noppi di bàyyi seeni xol dee leen xittewoo defar xol yi ndax fi la sunu woroom di xool dee leen ko setal ci mbooleem taq-taq yi yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallam nee na am na dogu nekk ci yaram wi bu yiwee lépp yim bu yàqoo lépp yàqu te mooy xol moo tax ngeen war koo xittewoo dee wattu seeni biir moomil cër bu naqaree samula bu leen ci dugal lu xaraam ak lu lënt ak lépp lu mën a ñàkk ci xeeti lekk yi bu ngeen amee hitte ci jaamu yalla subhanahu wa taala yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na gépp ndawal gu sax ci ger te mooy lu xaraam sawara moo ci gën a yey képp ku lekk lu xaraam wala lu lënt du mën a jaamu yàlla subhanahu wa taala namu mu ware yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama neena doomu aadama feesalul ndab lu yees biiram am na fukk yu nekk ci ci bari ci bari lekk ba ca njëkk mooy day wowal ab xol di wàññi ak leeram di finnaal cër yi ba duñu mën a jaamu yàlla subhanahu wa taala nam ware su ko defee dañuy tàmbulee jëm ci neen ba tey day néewal ak dégg ak xam-xam di neewal ak jaamu yàlla subhanahu wa taala di wàññi neexitu jaamu yàlla subhanahu wa taala seyduna abu bakar radiallahu taala anhu nee na mosuma suur ba ma jébbuloo ba léegi ndax ma am neexitu jaamu yàlla subhanahu wa taala ba tey man na laa dugal ci lënt ak lu xaraam ba tey day soxlaal sab xol ak saw yaram ci diggante bi nga koy ci diggante bi nga koy jëfandikoo ak boo koy génne ba tey day yokk mettitu sukaraat nee nañu kem ni say bànneex toll ci adduna ni la say mettiti dee di toll ba tey day wàññi tuyaabay ëllëg di waral ak yeex ca taxawaay ba ak ay yeddaanga ak i laaj ndax adduna lu lewam xisaab la lu xaraamam mbugal la naka noonu ay rafet rafetam dee leen xool te yeewu yeen samay nit maa ngi leen di moytuloo ñeent di leen digal ñeent ñeent yi ma leen di tere mooy guddal mebet yàkkamti rëy iñaan ñeent yi ma leen di digal moo di gàttal yi def ndànk ci mbir yi laabiir ci ñépp toroxlu ay mebet bu guddee day waral doo def lu baax doo jaamu yàlla subhanahu wa taala di waral ay fitna ak ay loolu moo tax ñu naan ku ay mébatam gudd ay jëfam ñaaw am na ko wax ni guddal mébat day xañe aw yiw naka noonu bari xemmeem muñ day waral nga am li nga bëgg lépp bakkan day woote ci aw ay waxtu wu nekk yàkkamti day xañe di lay yóbbe mooy yàlla subhanahu wa taala nee nañu boo yàkkamtiwul da nga àgg am na ko wax ni kuy def ndànk dana am li mu bëgg lépp waaye wala mu am ca lenn waaye ku yàkkamti tarxiis rëy day xalage ndax moom day xayibal diine ak pas-pas wuuteeg yeneen xayib yi ñoom dañuy xayibal say jëf saa su ëppee doole ci nit ki kenn du ko mën a dabaatal wala yaasu billahi taala ki ñaan day yàq jëf yu baax yi di la woo ci mooy yàlla subhanahu wa taala boroom xam-xam yu bari mooy seenu natt mooy xalak ñu bari ci ñoom ba tàbbal leen sawara waxuma la ñu xamul dara am na juróomi yëf yu nekk ci kiñaan ba ci njëkk moo di day yàq say jaamu yàlla subhanahu wa taala yonente bi salallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallam neena iñaan day lekk yiwi ni nga xamee ni noonu la sawara di lekke mat dana waral mooy yalla subhanahu wa taala ak ay budul dara itam digle gi sunu borom digle nukoy koy muslu rek doyna sekk tektal ci ak bonam wa min sharri hasidin isa hasad ndax daa digle ñu muslu shaytané ak ak ñuy njabar daa di ci boole ku iñaan loolu moo lay xamal ni sunu borom képp moo ci mën a musle ku ñuy wax Wahb ibn Munabbih radiallahu taala hanu nee na ku iñaan am na ñetti mandarga. bu la gisee day mel ni ku la sopp boo fàddoo mu lay jëw boo amee musiba mu ni ndokk ba tey dana waral coona ak njàqare ci lu dul benn njariñ wala sax njàqare gu ànd ak bakkaar ba tey day waral sab xol gumba ba doo mën a amu dégg ci mbiri diine yu bari am na boroom xam-xam bu wax ni maa ngi lay digal bëri noppi kon da nga sàmmonte bul xeer ci aduna kon da nga amug wattu bu hayibal kenn kon kenn du la hayibal bul iñaan kon da nga amug deg bu gaaw ba tey iñaan dana waral ak ñak ak xagn li ci ëpp ku iñaan xaajoom du faju du not ab noon xaatim neena na kuy xayibal kenn amul diine abram mbaaj matuta wóolu ku iñaan du am nimbal. imam Xasali ne nee na nan lay mën a amee li mu bëgg te li mu bëgg mooy xéewal gi suñu borom defal ay jaamam deñ nan lay amee ndimbal ci ay noonam te ñi muy noonu ñooy jullit yi jaamu yàlla subhanahu wa taala ba tey nee nañu ku iñaan du nekk ab sang ku ñuy wax ibnu yaqub bu daan ñaan da daa wax sunu borom yàlla nanga nu defal ak muñ ba nuy nangu xéewal yi ngay xéewale sa jaam yi ak li nga leen di defal ci tiranga yéen sama nit lii ma leen di wax jafe leen ko te génne bëgg aduna ci seeni xol kon da ngeen noppalu aduna ak alaxira dee leen moytu ngi sal ak nay bu ngeen alal ak bu ngeen amul bu leen aduna war bu leen saytaane war dee leen nëbbu seeni jëf yu baax ni ngeen di nëbbe seeni ñaawteef lépp lu leen nar a soxlaa ci jaamu yàlla subhanahu wa taala bàyyi leen ko lépp lu leen di dimbale ci jaamu yàlla subhanahu wa taala jàpp leen ko di leen bañ képp ku ngeen di bañ ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala di leen bëgg képp ku ngeen di bëgg ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala loolu bu ngeen ko defee sunu borom dana leen gërëm dana leen sopp bu leen jaxasoog buur yi ak niti adduna yi doonte soxlaa ko waral lépp luy waral mooy yàlla subhanahu wa taala bu ngeen ko xamee daadi leen ko bàyyi naka noonu bu ngeen ko njottee lépp lu ngeen njortu ni mën naa waral ngërëmul yàlla subhanahu wa taala dee leen ca def lu ngeen man bu leen tàyyel mukk ci def lu baax te ngeen xam ni coonay adduna ak naqaram lu mu metti metti bu ngeen duggee àjjana du doonati dara ku leen laaj bu leen ko delloo ak loxoy kese bu ngeen yoree dara dee leen joxe te koy tambule ci seen ñoñ ak képp ku aajawo dee leen bëril ñaan yi ak sarax yi képp ku ñëw fi yéen ngir xaajo neen ku dimbale seen kem kàttan ndax ki gën ci nit ñi mooy ki ëpp lu muy dimbale nit ñi dee leen naafile ci seeni néeg dee leen bëril jàng alxuraan bis bu set bu leen soxla woo ab liggéey wala xam-xam bay bàyyi jàng alxuraan bis bu set dee leen ko jàng lu mu tuuti tuuti doonte ñetti hisib la bu leen ko bàyyi mukk mel ni ñuy wut xam-xam ni ñuy def al yeddaali wax na ci azahab ni am na ñuy woote tasawuf di wax ni sikkar yi ñuy def moo gën a màgg alxuraan loolu ay fen la alxuraan ci la xam-xam yépp jóge bu ko bàyyi dee ko jàng di ci génne lu la neex ci xeeti xam-xam ni ko mag ña daan defe lépp loo dégg sunu boroom di ci tagg ab jaamam nga di ko def wala nga fas koo def naka noonu bu dee ab safaan nga bàyyi ko wala nga fas koo bàyyi ndax sunu boroom da koo wàcce ngir nga di ko jëfe su ko defee néewal njàng mi te di ko dégg bu wér moo gën di ko baril te doo ko dégg jang ben aya setantal ko moo gën wàcc ab kaamil te do ko setantal am na ko wax ni kudu setantal settantal doo am tuyaaba am na ko wax ni dana am tuyaaba waye wute gi mi ngi ci kudul kuy jang ngir mokal ko ibnu abbas radiallahu taala anhuma nee na ñaari rakkaa yu digg doomu ànd ak settantal moo gën taxaw guddi gépp te sab xol teewluwul yéen samay nit farlu leen ci yiwenal seeni jëf tey boole ragal ak yaakaar subhanahu wa taala bu leen sukkandikoo seeni jëf bile bu leen wóolu pexam seytaane li feeg yéen a ngi dund zayduna mahazum nu jabal radiallahu taala anu nee na am na bis yonante bi sallallahu taala wa sallama war ci ak gëleem teg ma ca gannaawam ba nu doxee tuuti mu xool ci kaw asamaan daa di sant yàlla mi atte lu ko neex ci ay mindeefam ni ma ma ma wuyu ko mu ni ma maa ngi lay wax loo xam ni boo ko wattoo dana la jariñ waaye boo ko wattuwul saw lay dog na fa yàlla subhanahu wa taala maxaas sunu boroom daa bind juróom ñaari malaaka laata muy bind asamaan yi malaaka mu nekk day nekk ci benn bunt kemtu laayul nu bunt ba toll ni lay da ni lay day da nga gis jëf joo xam ni malaaka yi alayhi salaam dañu koy yóbbu mu am leer gu day ni leeru jant bi waaye bu agsee ca buntu bu njëkk ba malaaka ma fa nekk danaan taxaw leen delloo leen jëf ji yi ca boroom dóor ko ca kanamam man maay seen mbirum jëw sunu boroom dama digal kuy jëw bu ay jëfam jàll fii ba tey malaaka yi alayhi salaam danañu yéeg ànd jëf joo xam ni leer ga day bari ba ñëpp di ko yéem ci bari ba ñëpp di ko yéem ci bari waaye akuk sell waaye bu àggee ca asamaanus ñaareel malaaka ma fa nekk danaan taxaw leen te delloo jëf jii ca borom ndax da cee bëgg la neen lu dul yàlla subhanahu wa taala te mooy adduna te man saa dama digal jenn jëf joo xam ni dañu cee bëgg adduna bu mu ma weesu di jàll su ko defee malaaka yépp rëbb ko ba tey malaaka yi alayhim salaam danañu yéeg ànd ak jëf ju rafet ak julleeg woor ak sarax ak taxaw guddi ñépp di ko yéem ci bari waay akuk sell waaye bu àggee ci asamaanu ñetteel malaaka ma fa nekk danaan delloo leen ko man maay seet ak ki def lii da daan rëy rëy lu ci nit ñi ba tey malaaka yi alayhimu salaam danañu yéeg ànd ak jëf jo xam ni day leer ba melni ni wi di riir ci ay sabbal ak julle ki koor ak xaj ak humra waaye bu àggee ca asamaanu ñeenteel malaaka ma fa nekk danaan taxaw leen te delloo jëf ji ca boroom dóor ko ca kanamam man maay seet naw jëf ki def lii da daan naw li muy jëf te man saa saa boroom dama digal kuy def noonu bu ma ay jëfam romb di jàll yàlla nañ ci mucc ci yépp ba tey malaaka yi alayhimu salaam danañu yéeg ànd ak jëf ju yiw muy leer leeri waaye bu ñu àggee ca asamaanu juróomeel malaaka moo fa nekk danaan man may xool ki ñaan ki def lii da daan iñaane nit ñi kon gërëmul li yàlla gërëm dañ maa digal jëfi kuy iñaan bu mu ma romb di jàll ba tey malaaka yi alayhimu salaam danañu yéeg ànd ak jëf joo xam ni jaamu yàlla yu bari la leer lool waaye bu ñu àggee ca asamaanu juróom benneel ba malaaka ma fa nekk danaan man maay seet yërmaande delloo leen jëf ji ca boroom dóor ko ca kanamam mësta yaram kenn képp ko am musiba da da koy ndokk ca musiba ma dañ ma digal ku mel noonu ay jëfam bu mu ma bu mu ma weesu di jàll ba tey malaaka yi salaam danañu yek and ak jëf joo xam ni lépp lu baax ma nga ca julleeg koor ak hajak joxe ak jihaat ak sàmmonte muy riir mel ni ak dënnu di melax waaye bu ñu àggee ca asamaanus juróom ñaareel malaaka ma fa nekk danaan ki jëf lii da bëggoon ku koy tudd aku yëkkati ko te lépp lu ñu def te yàlla taxul ngis tal la yàlla du ko nangu sunu borom moo ma digal jëf ju mel nii bu mu ma weesu di jall ba tey malaaka yi alim salaam danañu yéeg ànd ak jëf jo xam ni lépp lu baax ma nga ca julleeg koor ak asaka ak aj ak xumra ak jikko ju rafet ak noppi ak sikkar malaaka yépp ànd ak ñoom di leen gunge waaye bu ñu àggee fa yàlla subhanahu wa taala ba seere ba noppi sunu borom danaa yéen yéene wattu jëfi jaam bi waaye man maa li ci moom jubluwuma ci jëfam ji te rëbb naa ko mën naa nax nit ñi waaye mënumaa nax man maa xam lépp dara mënumaa réer xam naa lu wéy ak lu teew ak li ñëw ak li nëbbu ak li feeñ malaaka yépp alayhimu salaam maase rëbb ko bi yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxee li sayduna maas radiallahu taala anhu daa jooy jooy yu metti ni ko nu ñuy mucce ci lii nga wax yow yonante bi yàlla bi yonante bi sallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama ni ko der roy ci man ci ak wóolu mu waxaat ko ko yonante bi sallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama ni ko bu fekkee sa jëf daa melu na mu war a mel da ngay moytu jëw ak hayibal kenn rawante naa ku mokkal alxuraan say xayib na la doy bul xas kenn bul suufeel kenn di yëkkati sa bopp bul ngistal bul dugg ci àdduna dugg goo xam ni dalay taxafatte fàtte ëllëg bul waxtaan ak kenn te keneen nekk fa ngay déyanteeg moom bul màgg màggalu loolu dalay xañ yiwu tey ak ëllëg bul ñaaw jikko ci say jataay ba nit ñi di la moytu bul yàq deri nit ñi boo ko dee def xaje nekk sawara danañ la xotti loo bëggal sa bopp dee ko bëggal ñëpp loo bañal sa bopp dee ko bañal ñëpp ku ñuy wax Xaalid ibnu Maadaan nee na hadis bi mahaas ni mu ko daan jànge moo raw ni mu daan jànge alxuraan foofu la yem yéen samay nit bu ngeen déggee hadis bi ak ni mu ragloo nga xam ni xol bu ko teewlu dana tiit lool ak ni mu guddee ba neexut a takk li ma leen ci digal moo di ngeen jàpp ci yàlla subhanahu wa taala tey toroxlu tey jooy guddi ak bëccëg ndax kat li kenn mënu cee mucc kudul ku yàlla musalal boppam dimbali la yàlla nañu musal te dimbali ñu yéen samaw nit yeewu leen te jihaatan teeg seeni bakkan loolu mooy tax du ngeen xalku waxtu wu nekk dee leen dimbali ko yàlla subhanahu wa taala lu ngeen di tàmbuli dee leen wax aw naka yaa muin wa bika nastain ndax sunu boroom moo ëpp ñépp yërmane moo am pexe moo am kàttan waxtu wu nekk yàlla nay dolli yonente bi tedd nga aku góolu moo ki ñoñam ak saabaam loolu mi ngi ci jasaaw sa koor xatu ñeen fukk ak juróom ñett wallahu alam ginnaaw bi masante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonte bi alayhi salatu wasalam bi alihi wasabi wasalama yow samba doomi ahmadu mbay yow mbokk mu laa biir mi yal nanu yàlla may nu doy loo ko ba bàyyi lu dul moom maa ngi lay nuyu di la xamal ni nit yàlla subhanahu wa taala li tax ñu àgg fa ñu àgg du dara lu dul bàyyi gu ñu bàyyi sabab yi doyloo yàlla subhanahu wa taala bàyyi mindeef yi la jàppoon ni moo leen di maye lañu bëgg mooy bañ a am daraja ci nit ñi dañu daan def sax ci seeni kaw luy tax ñu xeeb leen ndax loolu mooy mën a sellal seeni jëf seen digganteeg seen boroom subhanahu wa taala xamal ni am murit bala moo jariñu faaw mu bàyyi xëccoo ak fay donte dañu ko yabal fu ay jaan nekk ak rab sax daa wara a ni loolee moo koy jariñ lu mu gën a nuru ni dañu koy xalak fa la gën a jariñoo muñ mooy tijji yépp yiw ñàkk muñ itam mooy waral lor yépp wallahu alam loolu mi ngi ci jasaau sakoor xatu juróom fukk sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahu. bi mu muslo ci seytaane julli ci yonte bi sallallahu taala alayhi bi ali wa wa salama mi ngi xamle ni sunu borom moko digal mu leral xasida gi mu wayon ca jaraariya te moy barab ba mu don sante yalla subhanahu wa taala ci boole gi mu ko boole jullit ñi foofee ginnaaw bi mu ko tekkale ko ginnaw bi mu ko tekkal tekkale ko ginnaw bi mu tekkale ko ge fari khadija ani suhlu min rabbi بتكرار لا سيما عند بير الخير جرار ba tey sëriñ bi xaadaloo laaw maxtaarloo mi ngi ñaan lii muy bëgg a leeral nekk am njangale mu am njariñ te ci dul benn wala nax-nax digganteem ak kenn maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala mi ma may iman ak islam ak isan. maa ngi julli ci yonante bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbi wa salama moom mi nga xam ni sunu borom da ko yónni woon ngir muy jàngale ginnaaw loolu yàlla rek moo tax may wax sunu borom subhanahu wa taala ko am la amul fu mu tàmbale amul fu mu yam nuroo la kenn wala lenn du jëmm ju ñuy làmb di ko daj wala muy melowuy nekk ci jëmm kenn la man na lépp telewut dara lenn mënta am te neexu ko xam na lépp day dund di dégg di gis di wax waaye yépp nuroowulu koog mindeef yi lépp lu am sunu borom subhanahu wa taala moo ko aman lu dagan moo ko daganal lu war moo waral lu jom moo ko sunu borom subhanahu wa taala amul bërëb bu muy nekk amul ak wet nekkul ci ak wet amul jamono ni nuy amee jamono nun nekkul kuy tuuti wala muy rëy wala muy am benn bëgg-bëgg buy dellu ci moom ci atteemi wala jëfam lépp loo gis muy nuru melaw sunu boroom ci mbindeef yi boo ko seetee xam ni wuute nag moom ci misaal ña nekk àjjana sax ci misaal ña nekk àjjana sax gañuy sax àjjana di wéy dootuñu dee ba faw loolu bokkut ak desug sunu borom subana wa ndax ñoom dañuy lekk di naan di xéewu ci xool ga ñuy xool sunu borom subana wa taala te sunu borom subhanahu wa taala na mu nekkoon njëkk mbindeefi ak bi ñu amee ni lay nekke bu ñu amatul képp ku jàpp ni ña nekk àddana àjjana danañu génn wala danañu faatu saytaane moo ko nax ndax sunu borom subhanahu wa taala neena ña fa nekk dañu fay sax di wey duñu genn duñu sonn sunu borom subhanahu wa taala def ak bayyi da dagan ci moom kep ku mu dugal aljana ci ak baaxam la la fa dugale kep ku mu dugal safaan ba ci ak maandoom la la fa dugale fay gi mu nuy fay ci jaamu gi ngeneelam la subhanahu wa taala sunu borom subhanahu wa taala li xamle ak amam mooy mbindeef fi mu sàkk li ñuy xamal ni amul fu mu tàmbalee mooy wër gi ak amam wër li ñuy xamal ni amul fu mu yam mooy ñàkk gi mu ñàkk a fenn li ñuy xamal ni yëmut ak lenn nuruwul lenn wala kenn mooy ñàkk gi mu ñàkk a fenn te yemul fenn li ñuy xamal ni sunu borom subhanahu wa taala du jëmm ju ñuy daj du melo wuy dugg ci biir jëmm mooy ñàkk gi mu ñàkk a tàmbulee fenn li ñuy xamal ni sunu boroom subhanahu wa taala kenn la mooy man gi mu man lépp li ñuy xamal ni am na kàttan ak xam-xam te mi ngi dund te dara mënta am te neexu ko mooy mbindeef yi am ko kookee leen amal boole melo yi ma wax dóor leen a mën a amal li ñuy xamal ni yàlla subhanahu wa taala ngi dégg mi ngi gis di wax mooy da koo wax ab yonanteem saxal ko sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wasallam mbolem borom xam xam yi maase ci te melo yooyu yi bu leen sunu borom subhanahu wa taala amutoon faaw seeni safaan lay mën a am te seeni safaan ak manke la te ak manke jom muna ci sun borom subhanahu wa taala li ñu xamal ni jëf mindee fi ak bàyyi leen daa dagan ci moom mooy bu fekkoon daganuntoon toon da koy war te bu waroon dootuñu ñàkk wala mu jom te bu ñu jomboon duñu am loolu mi ngi ci diwaanu jasaaw sakkoor xatu 56 wala alam noo ngi dollee xam le ni waxiinu arab bu nu koy firi ci wolof lépp du mën a ñëw wala bu duggee du leer te su ko xam moo tax jublu gi mooy mën a ñëw te mooy li nuy jariñ wallahu alam